jumaay Masaalikul Jinaan dalal na taalibe yi pour ñu amal julik tabaski bi gannaaw bi imaam bi defee ñaari rakkam ci ba mu ngi woo julit yi ñu moytandiku lépp loo xamante ne li sam da koy aaye ba noppi ñuy sax ci jàmm li ñuy yéem mooy tooñ bi ñu koy tooñ mu ne mu ne jéggal li ko tubaab bi def lépp bi mu wàccee géej ba mu dafa ñëw dene xafu anil ahdaay turran liwat ci man na ko am li xëy ni sarmada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 na nu xam ni Sénégal ku ko bëgg doo fi doo fi jëfante fayonte Sénégal ku ko bëgg da ngay dox jàmm. c'est aussi la paix comment vivre en société comment dompter également. waaw imam bi si xutbaam euh, jàmm la woote euh, tamit euh, naka la ñu war a mën a dundee en société naka nga war a xeex ak sa mer saa boo meree ndaxte saa boo meree te daluloo rek dinga def li nga xamante ne moo di ay wax na aussi ñuy ballante ak ndaxte lu am solo la ci réew. que les populations certainement entendu ont bien compris le message. mu mel ni discours yi ni mel moom la Bougane Gueye tamit répété moom mi di président mouvement gëm sa bopp moom daal daa jàpp ne kii di président Macky Sall moo war a njëkk a dégg li imam bi wax. le président Macky Sall est interpellé. faisons en sorte imam bi si xutbaam mën nañ jàpp ne kii di président Macky Sall la interpellé naka la ñu war def pour Sénégal di dund ci jàmm ndax dëkku jàmm la ko ñëpp a loolu nag kii di président Macky Sall lañ ciy xaar. le président de la République est interpellé le président Macky Sall. gannaaw ba mu noppee ci xutbam moom imam Serigne Moustapha Abdou Khadir Mbacké moom daal ñaanal na taalibe yi laataa muy souhaité jàmm am ci réew mi ak naataange ci Sénégal